di am mbégte ak sunu émission ci fii ci vingt 24 ànd ak Sud FM Thiès di nuyu tey jii seen émission démb ak tey di nuyu tey sunu grand sunu kilifa sunu xarit sunu lépp di Thierno Diop nekk journaliste jaar ci école journaliste yi journaliste yi bari ngay dégg Sénégal ci loxoom la ñu jaar waaye nag di ngi waxtaane tey sunu papa sunu kilifa di Alaaji Moussa màgget Diop. xam ni tey ji cadre bu taxaw ci senegal du ma ne Cees ci loxoom nga jaar ni ko ñem si yàlla nduur waxoon ci si école ba mu nekkoon collègue am tey yàlla def ñu tombé Thierno Diop ñuy waxtaan ak moom fii ci kër gi ñoo ngi lay nuyu. Euh, maa ngi delloo nuyu euh, di la gërëm ci waxtaan wi war a am tey mu jëm ci sa papa Alaaji Maguette Diop mi nga xam ne moo doon directeur école Clémenceau te ñu ko wax école Iba jóob euh, waxtaan wi nag mi ngi am bis bi nga xam ni waa ëttub Diop yéen ñooy sàggal sama jarbaat bi nga xam ni ñoom la bokkoon ñu koy wax Galadio Ba jóge fii le 14 février 2004. Et euh, question bi ma posé maa ngi euh, wax ni que man duma journaliste de formation man philosophie laa jàng doon jàngale CESTI bi nga xam ne nekkoon naa fa directeur des études. temps boobu Biraye Moussa Gueye moo doon directeur donc de 1990 à 1996 maa ngi fa jël sama retraite en 2014 mais bi ma paree directeur ba fa nekkoon ñu ko wax Ibrahima Sarr moo woo ni ma grand mënoo dem na nga toog jàppale ma leen di jàppale ba 2019 donc laa jógee CESTI donc village yu bëri formé li ma mën a wax sama papa. Euh, amoon na ay journalistes de qualité ah, euh, man bi ma fay nekk euh, maam Les Camara jàngaluma ko mais bi muy génn maa nga fa mais journaliste yi nga xam ni mën na leen am na Michel Diouf. mooy directeur u euh, rajo Sénégal am na Dahaba. Dahaba RTS. mooy directeur télévision. Mm-hmm. Racine Talla. Mm-hmm. jàngalu ko parce que bi muy ñëw. Mm-hmm. licence la amoon. parce que si dafa am ñaari fànn ñi nga xam ne dañoo am bac. ñetti at la def. ñi am licence mbaa maîtrise ñaari at dañu loolu moo tax jàngoon ma ko. Mm-hmm. Euh, ñaaña Sidibé. ñaaña Sidibé bu Thiès. bu Thiès waaw te nekkoon RTS. nekkoon jàngal naa ko. bon euh, Ibrahima Ibrahima nekkoon présidence ak Macky Sall. Mm-hmm, Ndoye Ndoye naa ko. Evelyne Silva jàngal naa ko. Mm-hmm. jabaru ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine bu koor jàngal naa ko ñoom nag ñoom laa jëkk jàngal bi ma ñëwee CISTI en 1980 et vraiment day promotion boo xam ni li ma nekk CISTI yëpp amoo promotion bu mel noonu parce que dañu doon étudiants yoo xam ni dañoo xarañoon ci ñuy jàng ba pare yaru ku ma ci gis di ma jox sama gëdde et day dem ba à yoo xam ne sax kenn dina ma woo par exemple ki yore euh, rajo euh, université mooy Ousmane Sène mhm. jàngal naa ah, ko nekkoon Walfadjri nekkoon Walfadjri daan animé diine ak jamono. Ah, ah, su ma ko tooñ sax maa ko wax dama ko wax diine ak jamono. bu dégg wolof. Mhm. xale bu baax. Mhm. moom tamit day toog ba day toog daal mais moo di ah professeur envoyé naa la Orange Money mbaa Wave na ma ñaanal ak ñeneen ak ñoom Abdou Demba Tall nekkoon rajo Sénégal daa ko na fa vraiment ñi ngi jàngal daal xam nga foo nekk euh, lu mat euh, ñeent fukki at vraiment jàngal ko ñu bari mais Omar Diagne bi nekkoon directeur bi dese ngeen ko te yéen a bokkoon dëkk man maa ko jëkk sisti Côte d'Ivoire daal nekkoon bi mu ñëwee bi mu ñëwee lañ ko recruter sisti ki ko recruter sisti mooy Babacar Sine mais bi mu ñëwee comme man ak Biaye Moussa Gueye dafa xamoon. ñun ñoo dem seeti Sine ni ko Sine am na suñu benn mbokk bu nekk Thiès doon jàngale Côte d'Ivoire ñëw Sénégal dañoo bëggoon nga jël ko noonu lu ko Sine jëlee ñu nekk ci école bi. Ah, euh, mais mais buñ ko fàttalikoo ñii di Babacar Touré ñam si yàlla si ñooñu tase nga fa ak ñoom ndax ñoom it ay question la ñu woon. Babacar Touré moom bi ma ñëw si si fekk na mu jógee fa. waaw mais nag euh, moom tamit euh, ku baax la woon li ma marqué am na benn bés ma nekk euh, Sicap dox ci mbedd mi mu rëm ma ci otoom dafa taxaw wàcc. nuyu vraiment ku baax la woon et ku xarañ la woon aussi ci liggéey bi waaw vraiment journaliste yooyu daal vraiment journaliste yu xarañ la woon et li ñu mën a wax daal sës si formé na ay journaliste yu xarañ parce que sës si du ay Sénégalais rek ñoo fa daan jàng. amoon na marocain amoon na burkinabé amoon na capverdien amoon na gabon amoon na nigérien amoon na comorien tey jii ki nga xam ni conseil am na benn conseil Kagame CESTI la jànge ay Maroc même am na français yoo xam ne jàng nañu CESTI ba vraiment daal euh, Mali aussi formé nañ si ñu bay mais léegi journaliste bu njëkk ak léegi bi nga gis wute na. non xam nga jamono moo soppi. Hmm. ñun biñ nekkee sist hmm. dugg fa lu jafeñ la woon surtout ñi nga xam ni dañoo amoon licenciement maîtrise parce que première année daaw ñu weesu ñaar fukki étudiants sénégale gabonais nigériens ak dëkk yu bari suñ nee ba deuxième année trente étudiants duñ ko weesu donc war nañ recruter dix dix yooyu dina am sénégalais dina am ñu jóge ci yeneen dëkk yu bari ce qui fait que sénégalais yi ñu daan jël ñaar ma ñett lañ daan am daanañ am moyen baax mais comme yi bari woon daaw leen jël aussi ñu ay jàngalkat yu xarañ mën naa ci tudd Djib Diédhiou presse écrite bi nekkoon soleil ku xarañ a koo xam ne aussi étudiants yi bëggoon nañ ko parce que maa ngi fàttali ko su remise diplôme amaan suñu wooyee Djib pour mu joxe diplôme xale yëpp ñoo jóg Djib Djib tàcc ko tàcc ko vraiment loolu daal c'est si métti trop léegi nag am na école yoo xam ni ah da ubbi sa am xaalis ubbi sa école day xam nga yow ku ñëw fay xaalisam mm-hmm. ah ñu ko jox diplôme. waaw waaw loolu nag. te bu njëkk loolu amoon. te bu njëkk parce que bu njëkk. Mm-hmm. benn école dynamique rek boo fi amoon. Mm-hmm. Afrique de l'Ouest. muy CESTI. te formation bi ñaata at la woon. pour ñi am at la woon ñi am licence ak maîtrise ñaari at la woon am na sax benn premier ministre euh, Burkina Faso boo xam ni CESTI la génne. soo demee Gabon. aussi ci conseil ji nekkoon ci gouvernement bi ministère yi am na ñoo xam ne c'est lañ génn même tey jii sax maa ngi xool fan yii euh, télévision gabonaise gis bi sama benn étudiante Anastasie Kenge ku dégg wolof moom tamit ci cabinet ministériel bi la nekk. mais Sidi Lamine ngeen fa. non Sidi Lamine moom génn école de moom arabe def dafa def journalisme moom moom moom moom waaw du du ko xam ne dafa jóg ni damay jàng journalisme mm-hmm. moom ak nen ma jambal Diagne ñoom ñoom ñoo jaar noonu quoi. waaw ñoom jambal Diagne waaw ñoo jaar noonu waaw waaw xam nga ma jambal Diagne moom ci affaire yu suñu doon liggéey. Mm-hmm. après mu dem bon dem journaliste quoi xam nga nag loolu la journaliste mooy métier boo xam daal. Mm-hmm. dafa ubbeeku. <laughs> da nga jékki-jékki xëy suba rek <laughs> man journaliste daal. et comme léegi moom eh, soo amee sa xaalis. maa mm-hmm. ñu nekk ci gannaaw jox la xaalis rek nga bisa journal. di bind lu la neex di wax lu la neex te rajo ak télévision yi. alors que ñoom. journaliste dafa am lu ñu leen jàngalee. am na noo war a bindee. am na noo war a waxee am na melokaan boo xam ne war nga ko am waaw vraiment ñun bañ fa nekkee CESTI étudiant daawul tardé waxtu su jotee dangay ñëw xamul tax parce que gis nga information day loo xam ni daa am solo suñ ne journal bi vingt ñu toogee ba vingt heures quinze wax ñu dara nit ñi ah lan moo xam ci dëkk bi maa ngi la jox benn exemple am na année boo xam ni président Wade war a def discours 31 décembre ñu toog toog toog toog lu yàgg mm-hmm. télévision bi waxul dara nit ñi tàmbali ni ah lu xew ci dëkk bi même am ñu nekkoon bitim réew woote ah li xew ci dëkk bi man samay doom bëggoon na génn ma ne ah du leen bàyyi ngeen génn de parce que xaw ma la xew ci dëkk bi pour wan leen rek que journaliste waroo ko def émission su jotee waroo ko def soo ko defulee nga wax lu tax defoo ko nit ñi ñeen taxiirlu mooy métier boo xam ne daal doo def lu neex doo wax lu la doo sol aussi lu la neex. voilà seen émission keesu démb ak bu tey ñuy waxtaan ak sunu mag euh, Thierno Diop Thierno dañuy waxtaan nag ci sa papa ji. di Alaaji Moussa Maguette Diop. nekkoon directeur école nekk ci enseignant yi gën a xarñ ci Sénégal. tey jii mu jur la. te njabootam macha allah. mais bu ñu doon wax ci góor googu mooy kan. ah Alaaji Maguette de. mën nañ fi toog ay waxtu waxtu di wax ci moom li ma jëkk tàmbali wax mooy Alaaji Maguette ñu ko wooyee monsieur Maguette dafa bokk ci jàngale yi nga xam ni tangu tubaab bi ñuy wax Afrique de l'Ouest moo amoon école normal nekkoon ndar jóge fa nekk euh, gore jóge fa nekk euh, Sébikotane tubaab bi su naa def concours ci dëkk yooyu yëpp dina jël ñi gën a xarañ. xar yi la woon. non état ah, Mali Guinée Niger euh, Côte d'Ivoire. Houphouët mhm. fi la jàngee. Houphouët Boigny fi la jàngee Modibo fi la jàngee. ak ñeneen Guinée am na seen euh, dirigeant xam ne Sénégal lañ jàng euh, économie lañ jàngee mm-hmm. boobu tubaab yi ñu defee seen concours boobu mu concours bu metti day jël ñi xam ñoo gën a xarañ ci jàng mm-hmm. ñoom lañuy jël yóbbal ñu jàngale suñu seggee ñoom ba pare nag léegi jël ñeneen ñi ce qui fait que ñoom formation bu baax baax lañuy amoon sama papa ci ñooñ la bokk moom formation mi ngi ko defee Gorée d'accord donc jàngalekat yooyu dañoo xarañoon ba pare nit ñi wegoon leen meleen cër man maa ngi leen nettali benn élève bu maître dóoroon dóor yu métti mm-hmm. koñ bi sax dëkk mm-hmm. bi ko papa ji gisee xol bi tooy. Mm-hmm. mu ni maître bi de naa ko rey mm-hmm. mais ba mu demee gis sam papa. Mm-hmm. sam ne ko bàyyi mu bàyyi. xam nga tey su doon tey jii la. tribunal lay mujj. donc ñoom mu ne leen cër te ñoom duñ ñoo xam ne rek jàngale rek moo doon seen métier. dañ daan yar suñu gisee koo xam ni yow du la dugal école kon bii ma lay wax am na koo xam ne papaam dafa gumba woon yaayam gumba sam papa fexe mu dugg école kooku bu muy génn àddina kilifa gu mag la woon ak ñeneen ñoom dañ daan yar et ñëpp dañ defan seen doom moo tax ñun mënuñu wax ni Alaaji Maguette Diop ñun rek la jur bari na ay doom man mës naa dem kër Baye Gane Kebe ànd ak sama rakk caat Umar bi ñëwee toog Baye Gane Kebe ni yéen de xamu seen papa sa papa jàngal la Baye Gana jàngal na ko et Baye Gana mook suñu taw bu góor Mame Assane ñoo bokkoon classe Baye Gana ni yéen de xam ne seen papa am na lu bari lu muy wax suñu papa xamuñu ko mu ni moom li mu téye sama papa mooy bi mu bokkee classe ak Pape Diop. Assane Pape Diop sa sa grand frère. mooy taw bu góor. Mm-hmm. ak sam papa dafa amoon benn dictionnaire moo ko moom nee daf ko ko may ba pare jëndal Papa Assane dictionnaire xam nga kooku ku njiboote ñëpp moom moo koy def bàyyi gànna dolli ci ni da doon tabax kër mu ñëw gardien bi ne ko ah sa maître de ñoo ne fi indi la suuf ak ciment ah mu ñëw gërëm sam papa bi kër gi paye nee na mu yóbbu ko fa mu ne ko ah monsieur kër gi pare na ah sa sa papa ne ko ah paregul des na beneen daal bi mu tàmbalee beneen bi mu ñëw ni ko dina pare mais su pare du ma fekk ci àddina nee na bi muy def aussi concours école normale dafa ñëw pour sa papa ñaanal ko sa papa ñaanal ko ba pare jox ko paas ni ko demal di nga àddina bàyyi gànnaaw kebe Umar mi nga xam ne mooy caat. ci gi su ko fekkee mu toog day jóg taxaw am na keneen ñu ko wax professeur Idrissa Pouy CTO moom lañ ko tuddee Idrissa Pouy ni meloon ak sam papa ñun ñi sam papa mel sax mel ñu ak moom et sama rak bu jigéen ñu koy wax aram aram bi muy soutenir thèse de docteur de médecine professeur Idriss Pouy moo doon président de jury bi xam nga soo ñëwee présenté ba pare dañuy wax nit ñi dañuy génn pour ñoom ñu gisante pour xool ndax dina jox titre docteur ba pare ban mention lañ lay jox bi ñu duggee. mu tàmbali liir liñ d'accord mais xalo xolam dafa tooy ba mënul àggale Eva Marie Coll Seck ancienne ministre moo jël kayit gi pour àggale loolu moom mës naa dem seeti woo di ko seeti parce que sama dama doom bu woon problème tànk bi ma gisee ki mu doon consulté dañu ko génnal mu ne ma ñëwal ma ñëw mu woo secrétaire bi ni ko gis na kii su doon bàyyam tey fi ma nekk doo fi nekk wuyu lay doon am na keneen professeur Babacar Diop di psychiatre nee na sam papa ma ko dugal école am na bés ma dem benn présentation livre tajafaak ay doom doom bu jigéen mu ni ma yow su woon sa papa tey min naan lañu doon parce sa papa moo jàppale sam papa sam jàppale ñu pour ñu mën nekk tey li nekk loolu am na aussi soo demee Soprim boroom école bi ñu moom bu ñuy wax Berzane sama ñaari doom jàng nañ fa bi mu xamee ni sama doom yi Alaji Maguette mooy seen maam dafa ñëw ci kër gi ni su du sa papa. du ma dugg école parce que sama papa bëggoon ma dugg école kooku nekk inspectrice ba ubbi école di former ay nit. am na ñoo xam ni aussi bi mu nekkee école Clémenceau maître bu mu joxee di fexe ba nga am kër am na ñoo xam ni am nañ benn ñaar. man ki ma jàngal ki ma jàngal CP1 e. ñu koy wax monsieur Thioune waaw monsieur Thioune nee sama papa moo tax moo am ñaari kër donc moo tax ma lay wax rek du ñun rek la juróon te na leen kër avant muy dem sama papa de doom mënu ko fay monsieur Maguette doom mënu ko fay lim ñu defal ah bariwul de man mi ma man mi lay wax ñun ci bari xamuñu luyaas man maa nga xam tàmbalee fay luyaas bi ma nekk étudiant France te amoon naa bourse soo tàmbee liggéey lu mu wax wutal kër soo wutee kër. tàmbali xaalisam na ci dem xam nga ngay liggéey ak say moroom ñoom ñuy fay luyaas tabax kër yow mosoo xam luyaas sooy tabax kër sa papa jël xaalis jox la dugal ci papa jooju mën na ko fay ba pare yar bi mu jox ñu ngi ko ci gërëm suñu bàyyil woon sax dara yar bi ñu jox rek doy na sant yàlla que foo dem ni doom monsieur Maguette Diop la ñu jox la sa gëdd et li ñuy wax senegal nag et eh, pour nit ñu naw la il faut ñu am lu ñu ruuse uh-huh. mbaa lu ñu ragale et ñun suñ ci saay uh-huh. mooy góor gi mooy góor gi. jeex na yàlla yaa eh, Thiès sooy dox. Uh-huh. suñ la gisee dañuy xàmmee xam na nu ñuy xam na xam na nu ñuy xàmmee rek soo ñëw ñu la jóob. Uh-huh. mais duñu xam ni Thierno ko tudd. Uh-huh. duñu xam Assane ko tudd. rue bi moom lañ ko tuddee. rue bi nga xam ni moo jaar fële. ñu ngi ko tuddee Morital. Morital te ñoom ñaar ay waay la. Morital. Eh, ak sama papa biñ nekkee école normale les trois mousquetaires lañ doon wax lañ doon wax man ak Ibba bi ñu dugg école sama papa moo nañu yóbbu école am mais def ñu dénk taal mooy mu nekkaroon leen sud e. et maag Ibba suñ ñëwaan ba na dugg classe mu woo ñu yóbbu ñu ci biiroom jox ñu ndékkiwaat jox ñu muru jox ñu gruyère loolu laa doon wax doomu Augustin ma ko Augustin sama payal loolu daal laa jàpp euh, ci moom. jërëjëf jërëjëf euh, Thierno Diop ñu ngi lay gërëm di la sant mooy seen émission keesu démb ak bu tey ci kees 24 tey ñi doon waxtaan ak sunu kilifa di sunu waajur di sunu lépp di Alaaji Moussa Maguette Diop toog ak doomam. di na Diop fii ci këram si eh, kër papaam ci Grand Thiès di leen ñaanal ndax papa ji lim ci wax roy la ci Sénégal gépp képp ku ne Thiès wala nga jàng wala nga nekk cadre wala ministre boo ne monsieur Maguette Diop la jàngal ñooy ne bett na xool ko si jëmm jë ak ci comportement li mu wax ci kër yi njabootam. ku ne ak kër am pagaay góor gi ku mu yar wala nga dëkk ci koñ bi rek defal na la kër defal na la terañ yàlla na yàlla yokk leeram tas na ci barke fayal ñu ko fayal ñu njabootam ndax sag la tamit ñu dëkk ak ñoom ci grand caisse di leen gërëm di leen sant di leen jox di daje ba bare yoon jàmm ak jàmm ci seetaan beeg déglu bi